jërë ngeen jëf président national moo xëy amee xët mu njëkk soleil national message à la nation bi woon keroog àjjuma ci la journal bi xëy tey bind ne Macky Sall dalal na xelu sénégalais yi yéenekaay bi tegal ñu ci ne feetuk indépendance gi ñu baaxoo ci réew mi ñeenti fan ci weeru avril gu nekk bu ren bi coronavirus bi tax na lépp dañu ko bàyyi mu sedd àndut ak benn mbambax ci discours am béyt fa la xamle moom jiit réew mi Macky Sall ne état d'urgence fan yi di ñëw lëkkut ñee nañu ca foo lu jëm ci plan bi nguur gi tekk ngir gunge yëgle ko waa réew mi ci jamonoy coronavirus gi ca plan ya bokk na ci ne facture ndox yeeg yu courant yi am na ci yoo xam ne état bee koy gàddul askan wi danañu yëkkati juróom-benn fukki milliards ak ñeent dugal ko ci wàllu wér géram gi ak ñetti téeméeri milliards ak ñaar yoo xam ne ci dette intérieure bi lay jëm mu di bor yu entreprise yu nekk fii ci réew mi warloo ak état bi état bi njiitam di Macky Sall Sud Quotidien bind ne ma ngay doxal plan a jàmmaarloo coronavirus bi ci kaw loolee am 975 522 kër yoo xam ne seen facture courant nguur gee leen ci yéene dugal fukki milliards ak juróom ak genn wàll jëlit ñetti milliards ngir fayal ci lu toll ci six cent soixante dix mille kër seen facture ndox juróom benn fukki milliards ak juróom-ñett yu war a jar ak dund ak fukki milliards ak ñaar ak genn wàll ngir waa diaspora bi mu di doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew journal L'Observateur xëy di càmbar ak jànkat message à la nation bu Macky Sall bi ak dogal yi mu ci jël docteur Aboubacrine Sadikh Diagne di fiscaliste docteur Cheikh Tidiane Ndour di expert en prospective ak docteur Khadim Bamba Diagne di économiste ñii la L'Observateur xëy àndal ngir di càmbar dogali Macky Sall Sall yi la tribune gis ne gile yoon président Macky Sall jëfe na la mu daan wax mu di patrie avant parti les économies moom kay def na ko tëggum se miñëng dënd neex benn naqari benn nafak réew mi la yulli teg ci état d'urgence be couvre-feu gi ñu tegoon ci réew mi mu yóbbu ko ba ñeenti fan ci yoru mai ci jamono joojee les économies ngi ñuy fàttali ne am na ñaareelu nit bu coronavirus bi faat ci réew mi ñaareelu doomu aadama boobee faatu ci réew mi ndax bi l'observateur mi ngi xëy di ñu wax lu bare ci moom séjouram ca da nga ko ca yéenekaay nañu ci fan yi ñu génn dégg ñu fi cas importé waaye ñaari cas communautaire feeñ nañu fi ci week-end bi ne day faj coronavirus te ñu ne dañu ko bëgg a essayé si Afrique loolee amul kenn ku ko rafetlu ci déndub Afrique bi ñépp a ko ñaawlu am na ci sax ñoo xam ne bi ñu déggee li ñaari docteur yu France yi wax dañoo mer bay futtu fii la fuuta féete futtul ay tuñ

leeral faatuk ndaw si di Iba Thiam moom bi dañu ko ak dorog moom xale bu jigéen da caa jël lu ëpp def overdose wax ñu ci yu garaaw mu di yu mu fore ci enquête bi ci la waxeet ne enquête ba jëlee nañu ko ci loxoy gendarmerie bu ngor bi ko yoroon dénk ko gendarme yu section recherche bu Faidherbe Fatou Iba Thiam ci Almadi mbir yaa ngi xeeñ dorog jërë ngeen jëf kër Masaar gi bëgg a doon këru korona moo def ka la Sénégal bil journal bi li am ci kër Masaar jamono ji journal las bombe sanitaire la ko tudde ne ci diirub ñetti fan juróomi cas coronavirus fay nañu fa te juróomi cas yépp ci transmission communautaire la jóge maanaam ñi corona xamuñu fan la leen coronavirus bi toppee kër Masaar diib gox boo xam ne la Sénégal nee nañu lu mu gàtt-gàtt genn wàllu million ngi doomi aadama ñoo fa yeewoo boole ci kit jaarukaay la ndax ñi dëkk Tivaouane Peulh ñi dëkk ñàgg ñi dëkkee Tëngéej ba Malika balaa kenn ñi dem fa nga dëkk foo jaar jaar Kër Massar ngir moytu lu lawal jàngoro ji ngir moytu it balay coronavirus bi déppi loxo moo waral bépp marché bépp centre commercial bu nekk Kër Massar préfet bu Pikine jël na dogalub tëj leen ñu tijji journal Les Échos gisaat fa mbas meeg ni muy doxee ci Sénégal coronavirus bi dox na ba yeggulu ga journal bi xamal ñu ne benn commerçant bu ñëpp xam ca njàmbur moo fa corona te li ci yéeme moo di xamul fan la jële jàngoro ji ñaareel bi di waa ji mi ndax wàllu leen kon ndax doom yi jëluñu ci ji bi mu amee corona ak léegi ñaata nit la amal contact yooyee yëpp journal nañu ay mbir la yu ñuy lijjanti l'observateur xëy di lijjanti mbiru lu nit bi corona bi rey ci réew mi ubbil yéenekaay bi jigéen la jëppal la dëkkoon ami restaurant la ñu ko doon woowee benn xaritam bu tudd Aïcha la ni ñu ci biir l'observateur ami corona bi reyu ko da koo jekkale kay ndax dafa amee woon diabète amee woon it insuffisance rénale bu ñu yeex a xam bi ko ay mbokkam xamee ci la ñu ko évacué woon yóbbu ko France ngir faji ko bi muy ñibbisi ci la àndaale corona bi ay mbokkam seetlu ko signalé ko ñu évacué ko hôpital Fann fa la faatoo ñetti fan ci yor avril ak juróom la amoon xaritu première dame Mariam Sall la woon ami soble noonee la ko Mariam Faye Sall daan woowee fu waay woo Hissène Habré tey ci yéenekaay yi mu wuyu la l'Observateur Les Échos L'As Soleil National Sud Quotidien La Tribune Enquête Vox Populi Le Quotidien ak Grand Place ñoom ñëpp ñu ngi ñuy xamal ne njiit réewu Tchad ba woon di Hissène Habré nekkatul ca kaso ba jugee ca kaso Cap Manuel ba ñu ko tëjoon Vox Populi ak Le Quotidien bind ne jàngoroy coronavirus bi moo ko génnee kaso moom maanaam ñaari weer Babacar Ndiaye Fall juge application des peines moo jël dogal bi ndax moom ci jëmi boppam di seen abré moo ko sàkku ginnaaw ba mu gisee ne ci jamonoy coronavirus gi ak nekkam ca kaso ba lu nekk mën na ko fa fekk ñu fekk de la justice maître Malick Sall ci biir l'observateur de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall mu fay leeral li waral ñu jëlee Hissène Habré ci kaso bi yóbbu ko ca këram ngir diirub ñaari weer nee na muy nekkee ca këram dara du ko Ndoye bu journal L'Observateur ne libération Hissène Habré dafay arranger administration pénitentiaire bi ndax place bu yaatu bi mu occupé woon moom kese ca Cap Manuel bu fa génnee danañu fa mën a yóbbu ñi ñuy mandat dépôt ñu dëpp dellu ci suur soi xooli coronavirus bi fi mu toll ci Sénégal am nañu démb ñeenti cas yu yees fukki cas yu wér ak téeméeri cas ak fanweer ak benn yu ñuy fàcc suur soi bind ne Louga jot na wàllam ci corona bi ci ki dugg moom nit ña ñoo nga ca jaaxle gu rëy ndax dafa am lu mat ñaari téeméeri nit yu nekkoon ci isolement ci Guinée dañoo dawee ci réewum Guinée ga ñu leen téye woon kenn nañu ne Kédougou moo leen gën a jege Vox Populi nañu cas importé yi ñoo ngi wàññeeku ndànk-ndànk waaye cas communautaire yi ñooy bëgg a jël seen place libération ne ko cas communautaire yooye nag ñoo tëj bopp kilifa yi amee wàllu wér gërëm yi ci réew mi réew mi njiitam di Macky Sall Sud Quotidien bind na ne xool na ba xàmmee tànn borom kër yi mu war a jàppale ci ndimbal ci facture courant yeek facture ndox yi Soleil national di ñu leeralal ci yan anam la ñuy doxalee ndimbal yooye ci fukki milliards ak juróom-ñett dina ci am juróomi milliards ak genn wàll yoo xam ne ci facture yi junniy doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar dimbal yi dina yegg ci ñoom borom compteur Woyofal yi dinañu ci bokk bu dee ci ndox mi ñu dox dem ci journal enquête fekki fa ñeneen ñu sonn lool ci dogal yi président Macky Sall jël ñoo di borom école privée yi ci réew mi tëj nañu l'école yi parents d'élèves yi ne duñu fay te xamuñu fan la wànnenti di mujj ki gëtam te ñoom borom école privée yi li élèves yi daan fay ci la daan dund cas communautaire a jur rëy transmission communautaire di nit ko corona te xamul fu mu ko jëlee ànd ak moom di dox te du xam fan la koy dugal ak kan la koy wàll loolee moo gën a gaaw ci dooleel coronavirus bi ci réew mi sud nañu moo taxit ñi séq wàll wér yi ci réew mi ñoo ngi dànkaafu askan wi ak di leen ñaax ngir ñu jël seeni matuwaay fàggu fagaru te fàggandiko Le Quotidien nañu transmission communautaire gi ñuy wax ci covid 19 bi tax na réew mi kenn ñemeetul kenn ñi jiitu xët mu njëkk Le Quotidien ne lu ñuy wax ba cas communautaire yi ñuy wax ci Kër Massar dugg Tëngéej ci mooy musiba am na docteur Aloyse Waly Diouf bu ministère de la santé ne ñu ci libération xeex bi dëgg nag mi ngi soog a door suur soo amel ne ku naan ko waxal ca kaw ndax coronavirus bi mooy jàngoro joo xam ne kenn mënu koo nat ne fan yi ñu génn gisoon nañu ne cas coronavirus yi dafa wàññeekoon ci réew mi waaye démb ak xibaar yi ñu jëlee ci waa ministère mel ne waa ndakaaru yëgaluñu ko seen yaram ñu bari ci dëkk bi dañoo mel na ñuy foweek seen musiba ndax dajeek dajalook nuyoo yi ñu ne nañu ko wàññi jamono ji boo demee fu mel ne ca Petersen wala ca garage Pompier ma nga ne fa xus lobs nañu am na ñenn ci askan wi sax ñoo xam ne bi ñu leen laajee lan lañu ñu xalaat ci coronavirus bi li ñu tontu mooy coronavirus bi feebaru tubaab la la si ne kay nañu kilifa réew mi da ñoom caaxaane wuñu ko benn yoon li koy firndeel moo di autorisation yi ñu doon jox nit ñi ngir ñuy mën a jóge cib dëkk di dem cib dëkk yooyee autorisation ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye dakkal na ko médicament communautaire yi tiital askan wi ci coronavirus bi am na leneen lu enquête dina kay xëy seetlu ci mbir yi ba mu def ko ka ubbel journal bi moo di business gi mu seetlu ci séddale gi ñu war a séddale dund gi nee na xeex bu rëy moo am ci bi ko séq ku ci nekk bëgg nga ñu jox la marché bi te marché la bopp enquête nee nañu la ca mën a ruusee mat na juróom fukki milliards Birahim Seck bu forom civil ni ñu ci nekkaay bi critères yi ñu teg ne ci la ñuy tànnee ñi war a séddale dund gi ci réew mi loolee moo fi nar a jur coow lu rëy ndax bu ñu nekk amul parc automobile bu mat fukki camion doo ca a bokk loolee dafay indi di surfacturation ci mbir mi l'observateur moom mel ne ku jàpp safaan wa wax ñu ne am na ku leen wax ne séddalim dund gi lu ci bari ci loxoy soldaar si la ñu koy teg soldaar yi le président Macky Sall di yónnee ci askan wi ni waa kineen gi ñu ne dafay faj coronavirus vox populi mi ngi ñuy wax ne Sénégal am na ci juróom-ñatt téeméeri dose te mi ngi séentu yeneen ñetti junniy dose yu war a ñëw ñu ñëw dugg caameen xooli mbiri xale bu jigéen bii di ndeem si yàlla Iba Thiam autopsie bañ doon def ci ab néewam na la ca nekk mi ngi ci l'observateur autopsie bi nee na li ñu naan hémorragie articulaire moo rey overdose la yéene kaay bi bind ne loole procureur bi moo koy leeral waaye li leer ba leer mooy ñoom juróom-ñetti nit yi ñuy tudd ci faatu Hiba Thiam mu di Dame Amar Louty Ba Jaja Tall Jibril Njoogu Besal ñu gën koo xam ci neex Fatima ñu naan ko Poupette Aliya ak Mamadou Ñaan ak benn policier boo xam ne nee nañu gaañi dañu ko fay ñeenti junni ngir mu escorté leen ci jamonoy couvre-feu bi ba ci seenu appartement ñoom ñëpp tey la ñu leen di defeere ñu war a janoo ji ak procureur bi anki dina kaay nañu li autopsie wax moo di xale bu jigéen bii di Hiba Thiam overdose moo ko rey maanaam dafa jël ca drogue bu lu ëpp libération nañu waa ji di neex wax na ci enquête ba ne ñoom ñëpp a jël ca drogue ba ba mu des aliya libération yamu ca ne ginnaaw bi mu ñu waxee la nekk ci enquête ba yëpp xamal nañu ne ñeenti délit lañu leen di toppee mu di association malfaiteur usage drogue violation loi couvre-feu ak non assistance en personne en danger mu di nit ku nekk ci danger nga seetaan ko laatar bi nañu ñooñee ñuy woowe ay fils à papa te ñu tudd leen ci faatu Iba ñoog policier bi dul gaaw a libéré mooy waa ji ci sursuwa ca quartier Gédé ga ci Touba fa la dëkk yor ab toolam ca biir këram di fa bay yamba journal bi nañu li tax ba kenn xamul ne yamba lay bay ca tool ba moo di mbayum yamba mi da cee raxoon tamaateeg mbër boof waa ji bala sant jërë ngeen jëf lii ràmm ngay bëgg a yegg ca ñag ba suur soi nañu lii direeku di ñëw xeeñul neex cas communautaire yi ñuy dégg ci ne bi jàngoro ju duggee ci réew mi ak léegi cas communautaire yi am démb musu fee am juróomi cas transmission communautaire ca Louga la fa am journal bi dañu dalul am xel ne commerçant ba fa amee coronavirus bi wàll na yaayam ju ko jur jàngoro ja te moom rek la ñu xam ne waa ji fu nekk la daan dugg ca dëkk ba les économies bu weesoo yaayam ji quarantaine ber leen ca dëkk ba ndax nee nañu dañoo am ak waa ji contact journal bi wax ñu it ne cas communautaire yeeg mel ci réew mi guddi yi moo jaaxal ñëpp grand place nañu li jaaxal ñëpp dafa jommal waa Kër Massar ne gox ba dégg nañ ko mu yoxuk jaaxleem ginnaaw juróomi cas communautaire yu fa jotaam rond Kër Massar gi ñu doon ragal mu doono bombe sanitaire bu mën a kalaate ci kaw askan bi nee nañu kilifa yi lijjanti nañu ko ba dajeeg dajaloo amatu a yëglu boole teel a jël seeni matuwaay ñàkk seen bopp libération nañu cas communautaire yi ñooy jur jàng ji jamono ji ci coronavirus bi ndax ci diirum ñeenti fan rek wàññi nañu fukki cas communautaire ci réew mi réew mi di Sénégal Sud Quotidien nañu boo boolee li fa am yëpp yëpp ci cas communautaire ñoo ngi toll ci fukki cas ak juróom-ñeent li ñenn ci askan wi jikko woote baaxul Sud nee nañu ba léegi juguñu ca gargot yi tey lañu fi gën a wullee ñaay sur sars yi ci oto yi ñoo ngi ne kurul ci dëkk bi ñu bari hygiène waxuñu ci dara dandante gi ñu leen sant defuñu ko am na sax ñuy làqatu di organiser ay soirée fii ci Ndakaaru quotidien moo ko bind bindit ne bàjj na gox yeeg yi soobu nañu ci xeex bi docteur Aloyse Waly Diouf bu ministère de la santé ne ñu ci mu njëkk suur soit li xel mënut nangu moo di ñuy terey dajaloo dem sax ba di ko tere ci barabu jaamukaay yàlla yi bu nuppi boo demee ci marché ak place publique yi di fa gisi rassemblement vox populi nañu masque yi ñuy takk bu ñu bëggee cas communautaire yi wàññeeku ci réew mi il faut que dañu koy faratal forcé ñëpp ñu takk ay masque yéenekaay bi nañu ca Tambacounda moom gouverneur ba tàmbali na ko fa nee na ku a demati marché takk sa masque Macky Sall mu takk ay weer yaram di wax bay joxoñ photo boobee moo nekk ci mu njëkk l'observateur Macky mu mer la l'observateur xëy di tegal li ko merlo yéenekaay bi nañu bokk na ci hôtel yi mu ne woon nañu leen jox docteur yi ngir ñu mën a jàppale a ñenn ci askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy covid gi nee leen lu mu gën a gaaw rek moo gën na dund gi yegg ci ñoom ñi ñu war a fay seen facture yi seen facture ndox ñu fay leen ko ndax luy jot jot na ñu jote ci l'observateur kàdduy waykat bii di Souleymane Faye li muy ñaan moo di ñu bañ a yegg ci confinement ndax jàpp na ne bu ñu ko defee musiba lay jur ci réew mi professeur Bamba Kane ni ci la tribune bu dee askanu Sénégal bëgguñu ñu yegg ci confinement total kon dañoo war a soppi suñu doxin kay ñu dalal euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coronavirus bi bu doon bomb la libération nee nañu ndakaaru la ruuree te kenn gisu ko yëral xat mu njëkk bi bi Covid 19 duggee ci réew ak léegi ñaari téeméeri ka ak juróom fukki yi fi amagum téeméeri ak juróom benn ndakaaru la ñu maanaam cas sur cas yëpp seeni borom ndakaaru la dëkk gox yi di Yoff Médina Wakam Sangalkam ak Plateau fu ci nekk journal bi nee nañu ay cas communautaire coronavirus ci Dakar Dakar Ouest mi ngi ci juróom-benn fukki kaa ak benn Dakar Sud mi ngi ci ñeent fukki kaa ak juróom-ñett Sud Quotidien nañu jur jàngi jàngoro ji dëgg kay mooy Dakar fi la bomb kaa coronavirus ak juróom fukki yi fi feeñ téeméer ak fanweeri ak ñett ya seeni borom ndakaaru la ñu dëkk kaa transmission communautaire yi te bari nañu lool ci dëkk bi dëkk yu ci mel ne Kees ak Touba la Sénégal nee nañu xel nga fay dalandeegum ndax ci jamono ji ñu toll dégguñu fa benn kaa kaa communautaire yi gën a tiital nit ñi dégguñu leen démb ci réew mi dégg démb ci corona bi te déggee ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf moo di ci téeméeri test ak juróom-ñeent yi ñu def juróom-benn ñoo ca corona soleil national xamal ñu nit ñu ñu gis jàngoro coronavirus bi ci ñoom daanaka genn wàll gi yëpp faj nañu leen ba ñu wér ñaari téeméeri ka coronavirus ak juróom fukk ñoo feeñ ci réew mi téeméer ak ñaar fukk ak ñett génn nañu l'hôpital yeneen téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñeent ñoo nekk ci traitement la ñu démb dégg nañu kii di Ba ministre affaires étrangères mu ne état bi gën naa taxaw ci jàppale doomi yi nekk na ngir jëndal la ñu suul la fa nga faatoo wax na ne fukki milliards ak ñaar yi a baaxee waa diaspora bi benn milliard ba seeni borom daanañu ci jot semaine bi grand place ñu fukki milliards la ak ñaar nekk bitim réew te seenu nekkin foofee gàll góose dinañu leen taxaw doomi Sénégal yi amee coronavirus wala seeni mbokkit danañu leen leen taxaw l'observateur nañu coow laa ngi noonu nag douze milliards cinq état bi nattal waa diaspora bi nu ñu leen di doxale mooy li ministre Amadou Ba war a lijjanti njëkkee ci xët mu njëkk l'observateur ñu jàngee fa plan de guerre bu yees bi président Macky Sall tekk ko ci xeex ak covid 19 bi journal l'observateur wax ñu it ne lu jëm ci mbiri confinement gi ñuy wax président Macky mi ngi ciy déglu spécialiste yi ba xam lu ñu ciy wax source wax derkale benn cas ba fa feeñ démb moo tax léegi mi ngi ci fukki cas ak juróom-ñeent yëmbal ak Kër Masaar topp ci ak juróomi cas Louga fekk si leen ak juróomi cas moom it ak téeméeri nit yu manqué juróom-benn yu ñu fa quarantaine Dame Amar ma nga ñu quarantaine ca kaso ba journal Le Quotidien nañu moom Dame Amar ak ñeneen ñi ñuy tudd ci faatu xale bu jigéen bii di Hiba Thiam juge bu huitième bi mandat dépôt na leen démb ci guddi Les Échos nañu ñi ñu mandat dépôt Dame Amar la neex Fatima Rigal Layla Jaja di policier bi ñu ne moom la ñu fay ngir mu escorter leen ci jamonoy couvre Amadou Niang ak luuti ba ñoom ci contrôle judiciaire la ñu nekk Vox Populi nañu Dame Amara compagnie mandat dépôt nañu leen dossier ba dem na instruction prostitution di càggatu bokk na ci métier yi gën a dellu gannaaw ci réew mi guddi yi ñu toll ña yëngu ñoo ko waxal seen bopp ci l'observateur ubbil journal bi couvre-feu beeg état d'urgence bi am ci réew mi moo tax ñoom génnkati guddi yi ñoo ngi bëgg dee seen dara doxatul am kenn ci ñoom ku wax waa l'observateur enquête ngir mën a gérer situation bi nee la mu daan liggéey guddi léegi bëccëg la koy liggéey te soo amee client li muy njëkk a def mooy jël thermoflash am xool température am bu nuppi jërë ngeen jëf jalti jalteek ñol ñol ak coow lu rëy amagum na xaat ci dundu geetaa bi war a jàppale lenn ci askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy coronavirus gi la Sénégal nañu keroog samedi ci ngoon ci teewaayu président de la république Macky Sall ci la ñu sarse ay camion a téeméer ak juróom fukki communes yu nekk fii ci réew mi séddale ko lu mat benn million yu kër fa coow la nekk nag mooy ci marché bi jëm ci transporté dundu googe ndax laas nee na li ñu bari ci askan wi comprendre mooy lu tax ñu defub appel d'offre ba jël marché bi di ko joxe di ca fay xaalis bu dul jeex ci jamono jot ci collectif jëmbu transporteur routier yi ci réew mi neewoon nañu ku leen ko jox ñu yóbbu ko te duñu ci laaj dërëm ministre Mansour Faye mi yore yëf yi ak l'homme des bii di Demba Diop Diop si mi ñu ñëpp ñi ngi xëy di weddee ka leeral benn milliards yi ñu la ñu fay ci yéenekaay mooy pass bi ñu yóbbulee famille bu nekk wàllam ci dundu gi Mouhamadou Ngouda Mboup dib juriste doo nit enseignant chercheur ci université Cheikh bu Ndakaaru ne ci L'Observateur loolee moo njëkk a yoon Diop si mënuta doonub député ci assemblée nationale bu nuppi bëgg koo booleeg mbubbum chef d'entreprise ba naan mi ngi gagné marché procès yu ni mel loolee yoon nangu ko ñu nangoo ci journal Les Échos ne bàyyi defal yàlla yi ci réew mi di bon wolante yi dugal nañu ci fonds force covid bi ñaar fukki benn téeméeri million yéenekaay bi nañu waaye ca joxe ba gis nañu ci ñu tabe gis ca ñu yéwén gis ca ñuy def ca yàlla tax gis ci ay lom des yu boole nay ak ngot libération ne ko ngot ak nay moom feeñ na ci ndax Socosim Total Suma Dangote ak CRBC boo boolee li ñu joxe ñoom ñëpp li commerçant chinois yi ca Centenaire ak Petersen joxe moo ko que ab jël la daanu ci xeex bi ne ba yëf ya tàmbale ak léegi defagum na ci ñaari téeméeri million ak ñaar fukk ak ñett bi ci mujj yéenekaay bi nañu mooy démb ñaari téeméeri million la jël jënd ci dund ngir séddale ko askanu Touba ak li ko wër ànd ko nag ak maire bu Touba ñeenti téeméeri toni ceeb ñeenti téeméeri toni ceeb fukki junniy paquet yi suukar ñeenti junniy litre yi dëwlin ak yi muy àndal mu fekki fukki million yu mu génne woon ci poosu boppam joxe woon ko ci turu entreprise am bii di Touba matériaux Touba Louga ak Thiaroye l'Observateur nee nañu ay gox la yooyu coronavirus ba ñoo nga fa ba léegi ci Louga nag fa la gën a tare ne ci diiru benn semaine ka corona yi na ci ñaari ka dem ci ñaar fukki ka ak juróom libération nañu ndakaaru it kenn demul mu des moom ay ka communautaire ñoo ko sonal ñoo ko togg fitna démb ci altine ji rek am na beneen ka bu feeñati ca Gueule Tapée la tribune nañu ñaar fukki ka coronavirus ak juróom ñoo am ci Louga am na it ñaar fukki doomi aadama yu ñu ber quarantaine leen ci Touba confinement total ci réew mi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne président Macky Sall nee na bu jàngoro ji delluwul gannaaw yomb suuf soi nañu maire bu Louga di Moustapha Diop moom ma ngay xeex bu baax a baax ak coronavirus bi léegi ko ne ko boole ko ak di taxaw askanu Louga ci la am ca dëkk ba juróom fukki tonni ceeb la wàccee ci Louga juróomi téeméeri litre yi dëwlin ak juróomi tonni suukar te nee na du fa yam ndax moom Moustapha Diop mooy bàyyi fa lu Louga loo kër mbargo Vox Populi mi ngi ñuy fàttali ci xëtam mu njëkk ne ñaar fukki cas coronavirus ak juróom am na fa mi ngi ñuy li ñuy tere ci mi jëfewuñu ko ndax li ñuy tere ci réew mi mu di ay dajaloo di dogal bu jugee ci président de la république Macky Sall wàllonaas sàmmonte wuñu ak dogal bi ne ñoo ngi ubbi seen kees que nit ña di fa dajaloo di carte muy jur ay rassemblement Vox Populi ñu firndeli moo di démb agence PLR yu Médina yu Sicap ak yu Plateau dañoo tijj jërë ngeen jëf ku ñu yàgg dégg te kenn mësu koo dégg fànn moom la ñu xëy dégg muy wax ci l'observateur ubbil yéenekaay bi moo di waa ji ñu mooy sénégalais bi njëkk dugal coronavirus ci réew mi di moodu moodu bu jógewoon Italie indaale feebar bi te xamu ko moom moom la Touba maar la tudd ñu di ko woowee yaaram maar nee na bésub àjjuma juróom benn fan ci weeru mars cinq demi ci ngoon ci la jóge woon Italie ba muy ñëw yëgul woon dara ci yaramam bi ñu iskaale Maroc ñoom ñi ne woon ci avion bi yëpp la defal ay test waaye dara feeñul woon ci moom ci noone ci la yegsee Sénégal samedi ci ngoon mu dugg Touba ca talaata ja ci la yëgee yaram wuy miti dem ca centre de bu Daaru Marnaan ñu tëye ko fa testé ko fa a miti bokk na ci baatu moodu moodu bi moo fi indi maar wàll na jàngoro ji benn waa classam moom gone gu jigéen gi di binta maar xamal waa l'observateur ne am na lu ko mitti lool ba mu yëgee ne am na benn élève ca collège Fallou Galas bu Mbàkke bu am coronavirus bi te moom binta moo ko ko wàll Abidja di aawop yaaram maar ne waa l'observateur mooy ki ñu njëkk a wàll jàngoro ji ci famille bi nee na leen it bés bi Pape Diouf di faatu ma ko fekkoon hôpital Fann ba mu ko déggee li jógee ci moom du gaaw a dellu si ndaxuk tiitange keneen ko bokk maareen di la ci moodu moodu bi di yaaram maar nee bi ñu leen quarantaine confiné leen nit ñi dañu leen doon daw kër gi sax kenn nangooti fi woon a jaar ñu jaare fa génn maaren te dim ci le quotidien mi xëy ak ñun ca Louga ak nafa kaa coronavirus ya mel xamal nañu ne ci diiru benn semaine nemmeeku nañu ñaar fukki kaa coronavirus ak juróom-ñaar ci dëkk ba mu fa jaaxle gu rëy loolee waral kilifa yi gàllawàll wir gërëm yi ci Sénégal samp nañu fa ab centre de traitement ngir defa faj corona libération nañu ci yooyu la Ndakaaru moom mi ngi war kaa communautaire yi talaata ji suur soi nañu limub ñu corona ci réew mi saa si tembe mi ngi toll ci téeméeri doomi aadama ak fukk ak ñett juróom-ñetti cas yi fi feeñaat démb moo ko tax a yegg foofu waaye li ëpp ci cas covid 19 yi ci réew mi ndakaaru moo ko gàddu ceebu Mansour Faye bi gàddu na coow vox populi nañu ceeb bi dafa mujjee am virus ne sarse nañu ko ci camion dugg ak moom dëkk bi ngir war ko jox askan yi waaye laata dund gi di yegg ci seeni borom ca la ca coow juddu ne bi mi ngi toll ci fukki milliards ak juróom-ñaar ñu séddale ko ñaari société Aventi ak Afri Enco te ñaari société yépp benn moom muy waa ji moom planète kebab waa ji Ryan Hachem la tudd mi ngi ci xët mu njëkku laa Sénégal yi nee na amul lenn lu muy nëbbu ci mbir mi te moom du ci ceeb bi ndax ñeenti at a ngi mu ci yëngu te mu jaaye tonub ceeb bi gouvernement bu Sénégal moo gën a yomb li ñu koy jaaye ci marché bi patriotisme moo ko ci tax a dugg wax na it ne risque bu mag la jël ndax joxe na ceebam te xamul kañ la ñu koy fay grand place nañu moom li ko jaaxal mooy lu tax ñuy wax waxi ceeb ci réew mi te boole wuñu ci importateur ceeb bu mag bii di Bocar Samba Dièye journal bi gis ne gaañi ñoo defuk tay taylu ba fàtte ko Sud Quotidien nañu muy marché bi jëm ci njëndum ceeb mai di marché bi jëm ci transporté dund gi mu dem ci biir réew mi yëf yi mi ngi xeeñuk scandale rawatina ba ñuy dégmati ne marché ceeb bi ci loxoy xaritu président de la république ci la tàbbi La Tribune nañu moom kay scandale gu rëy moo ciy xeeñ te nag du ci ceeb bi rek ak ci transportu ceeb bi ne La Tribune xamal nañu ne marché importation gel hydroalcoolique bi benn conseil bu président de la république moo ko ngaar daajoo sursoi nañu neexul ba neexul waaye mbir yu luusa nga ca te gorob Macky Sall bi di Mansour Faye bu bëggee fay coowal jóbsi ci moom la des loolee waru tajafe na siiwa rek fi mu jógi ba jox marché bi jóbsi góor axuma ne ñu ci la témoigné entreprise bi gañ a marché bi jóob si moomu ko dañu koy mbubboo rek waaye am na yeneen i homme politique yu nekk ci ginnaaw góor ne nañu annulé marché bi bala muy gën a sori les éco nañu ñoom transporteur yi mbii fa foore mën Mansour fay ak jóob si ba seen xol sedd ndax nee nañu waxoon nañ leen ne jox la ñu dund gi ñu yóbbu ko ba fa mu jëm te duñ leen fayee ko ba ñu ne dañu ñuy fay sax dañoo lànkoon jàllo ñang di jiital syndicat gros porteur yi ni ñu ci les éco ba ñu demee waroon a gisee ak Mansour Faye ab secrétaire am la booleeloon moom dem recevoir ji jóob si ak alaaji Ousseynou Diouf li ci libération commission romb na cas communautaire romb na cas contact cas individuel yëral xët mu njëkk journal bi Emmanuel Ndéki benn waay la bu takk deri jàpp fekk ci moom yamba mu ne leen yamba ji dama koy roofe samay ginaar ndax man ginaar gu ànd ak doomi yamba mooy sama plat préféré jërë ngeen jëf Vox Populi nee nañu ni mu mel ndakaaru jéggi na dayoo ne ci ñetti téeméer ak fukk ak ñeenti cas corona yi am ci réew bi covid 19 bi duggee Sénégal ak léegi téeméer ak juróom fukk la ñu nekk démb rek am na fukki cas ak ñaar yu Dakar Nord mu di Grand Yoff Patte d'Oie Parcelles ak Cambérène ci Ziguinchor ka coronavirus yi jóge nañu ci benn dem ba ca ñetti ka ka bi fi mujj démb la mu di ab ka communautaire bu feeñee ca gox bii di Lindiane di benn waay bu toll ci juróom-benn fukkeet ak ñett Les Échos nañu mbir yaa ngi gën di doy waar Ndakaaru ak Louga nag ñoo war coronavirus bi te ko wàcc ci diwaanu Ziguinchor it journal bi mi ngi ñuy fàttali ab ka communautaire bu fa am démb ak yeneen juróom-ñaar fukki na léegi ñetti téeméeri ka jukkil dëkk yi coronavirus bi yegg ci Sénégal ak ca yamu yeggagul wax ñu ne juróomi région ci Sénégal ñoo muccagum jamono ji ci jàngoroy coronavirus bi mu di Kaolack Kaffrine Matam Sédhiou ak Kédougou l'observateur moom xëy ñu baaxee natt bu wér ak takk bu yéeme ci coronavirus beeg ni mu tëddee ci réew mi ba xamal ñu ne Covid 19 bi bàyyiwul sax xale yi ndax gis nañu fi ay xale yu am ñaari at sa ñett ñetti at ak juróom at yu ko amee docteur Aram Top Sen mi jiite action sociale di ñu wax ci biir l'observateur ne nañu ci réew mi lu ëpp ñaari junniy doomi aadama ak juróom fukk ak benn la tribune ñu ci xëtam mu njëkk ñi ñu confiné ci réew mi jege nañu ñetti junniy doomi aadama lépp rek ngir moytu coronavirus bi gën a law ci réew mi soleil national xamal ñu ne quartier yu bare ci Dakaaru jàngoro ja yegg na fa Sénégal mi ngi léegi ci ñetti téeméeri cas ak fukk ak ñeent l'observateur dollil ko ci ne ci Goudiri am na fa junniy doomi aadama ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn yoo xam ne seeni borom ay cas suspect lañu Mansour Faye cas suspect la waxuma ko journal L'As moo ko bind ci xëtamu njëkkam jërë ngeen gan gu kenn bëggul te boo nee ma ngay dem mu gën a jekkal ab toogaayam mooy coronavirus bi soleil national mi xëy di ñu wax ci yan région ci Sénégal la jàngoro ji gën a laal teg na ci di ñu wax li ñu am démb ci ka coronavirus ci réew mi mu di xibaar bu mu nangoo ci waa ministère de la santé jële ko ci làmmiñu docteur Xemes Ngom Ndiaye ñeenti téeméer ak fanweer ak juróomi test la ñuy def bërki démb gis ca ñaar fukki nit ak benn yu corona bi mbas mi duggee ci Sénégal ak léegi lim bi mi ngi toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróomi nit amee coronavirus bi ñaari nit yu manqué juróom benn wér nañu téeméeri nit nit ak fanweer ak juróom-ñett ñooy faju libération nañu fi ñu war njëkk faj mooy ndakaaru diwaanu ndakaaru soxla na lool ak taxawu ci coronavirus bi rawatina ci cas communautaire yi fi mel ne fitt gumbar sànni ne ginnaaw Gueule Tapée Parcelles Assainies ak mbaaw amaat na beneen cas communautaire bu feeñ yëmbal bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi limub ñu corona ci ndakaaru romb na ñaari téeméeri Vox Populi ne ko ñaari téeméeri lañu ak fukk ak juróom préfet ba jël na dogalub tëj marché ya la nañu ci ndakaaru ak ca Touba fa indeb corona bi gën a folote ñaari diiwaan yooyu ay diiwaan lañu yu tàng jër rawatina ci cas communautaire yi la tribune ne ko foo yëmbal ak Grand Yoff gox yooyu ay gox lañu yu matama yi gët gox yu jara surveiller ndax ay bomba nga fay tëdd di nelaw te bés bu ñu kalaatee musiba naaru lay lay doon ne yi ñu digle ngir moytu coronavirus bi jëfewuñu ko ca Parcelles Assainies beneen cas Kër Masaar ak Yëmbal ak Touba fu ca nekk ab cas communautaire feeñ na fa démb cas communautaire bi feeñ démb ca Touba journal Source A nee nañu ab vigile la bu nekkoon marché Ocass juróom benn ci ay dëkkandoom moom vigile bi quarantaine nañu leen ca guddi riit mbir yaa ngi fay gën a doy waar ndax fukki cas ak ñaar feeñaat nañu fa démb léegi diwaanu Tamba mi ngi ci ñaar fukki cas coronavirus ak benn l'observateur tax nañu li yokk joote ja ci guddi ri benn kilifa diine boo xam ne nee nañu benn shérif doon dem gànnaar moo fa jaar wàll ko kilifa diine googe ba mu gisee shérif bi bu nuppi ñeenti ca teg yaayam génn àdduna ña ñëwoon ca dëj ba ñu ca bari fale leen coronavirus ba toppee le quotidien ñu urgence cas communautaire yi ñoo ngi gën di law ci réew mi coow li ne coob bay ci dund gi état bi war a néew ji doole gi vox populi nañu ci wàllu woowee mu di séddaleem dund gi nguur gi dooleel na gouverneur yi ngir ñu surveiller maire yi ba kenn ci ñoom du sàkkal pexe dund googee war dem ci askan wi ministre Mansour Faye sàkku na ci ñoom ngir ñu wax préfet day a tas xaalis ba ca war a dem ni ñu koy doxalee moo waral coow li Sud Quotidien nañu société civile gi ci réew mi ñoom mayuñu dara état bu Sénégal pari fond Covid gi lépp tege ci leeraange li leer ba leer mooy ministre de la pêche Alioune fa mu jëm nappkati réew mi jën amu fa ubbil la témoigné moom Alioune ministre pêche ak économie maritime ñaar fukki licence su ak juróom la jël jox koy Sinoa groupement des et industriels du Sénégal boobee napp gi ci réew mi la nar a rey ba mu dee ki ñu fi tàggee woon te deewul di ancien lutteur bi di booy Bambara jug na di ko weddil boppam ci xët mu njëkk l'observateur la xëy di ko fa weddee nee na ñi ko tàggee te deewul ñoom ñëpp la ñu war dajale jël leen yóbbu kaso booy Bambara ne bés bu faatoo bu kenn jaar këram naan yaa ngi koy rendre hommage ki muy sant ak di ko gërëm moom booy Bambara moo di mbër mi di Triple S doomi Double Less mu di Balla gay 2 ndax nee na bu amee lu muy fajoo ba léegi ginnaaw yàlla Balla Gaye 2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 par sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps